salaam salaam mën na nekk ak jaamu dong la dal leen jaamu ci seen podcast mën na nekk podcast biy dugg fépp ci Sénégal di waxtaan ak ndaw yi nekk seen town di fa xëy ak di jàppale seen ay mboroom ci wàllu samp sa këru liggéey wutum xëy ak sàkku xam-xam tey nag ñi ngi ci région bi nga xamante ne. mooy dëkku président Abdou juuf ak président Abdoulaye Wade su ma leen waxee ne ñi ngi dëkku Baye jiili Mbaye di ngeen xam ne nekk ñu feneen fudul Louga loo ñu ko raan woowee Ñàmbuur dafa mës a nekk dëkk bu ñu ràññee ci yëngu-yëngu mbay ak jënd ak jaay balaa sax Sénégal di am indépendance ci atum 1976 la dëkk bi nekk région te ba tey jii dafa doon dëkk bu bëri yëngu-yëngu ak dem ak ñëw ci gox bi ñuy woowee marché central Louga nag la ñu ñëw tey seet fi benn entrepreneur bu yëngu ci restauration moom mi ngi tudd Babacar Sow nekk benn borom dibiteri bu ñëpp xam fii ci Louga. fi ñu nekk nii fan la. marché central Louga. a ah, fi may marché central de Louga. waaw. Babacar yow depuis kañ nga nekk fii am fi sa dibiteri. depuis 2017. macha allah lan moo la dugal ci dibiteri. dibiteri sama nijaay. nga doon def avant ngay commencer liggéeyu dibiteri. école BP école. jàng nga ba ban niveau. niveau quatrième. bi nga bàyyee école rek nga ñëw commencer liggéey ci dibiteri quoi. pour yow yan qualité la entrepreneur soxla pour réussir ci am dem ba am sa liggéeyu bopp. waaw xanaa ah, fonk sa classe sa liggéey. waaw dem ba investir jël yeneen booy yeneen jeunesse ñi ciy liggéey. man di loolu laay rêvé man. Eh, ñan ñoo gën a nekk sa ay clients. ah hygiène comme genre téyeer yi ne ci marché beeg yooyu. fii moom client client du fi manqué quoi. non marché bi ku lekk dibi daal fii ngay ñëw quoi débiteur yi baa kon Louga nga juddoo yoroo fi màggee fi. oui. mais lan la lay fi yoroo fi màggee fi am fi sa liggéeyu bopp. waaw moom rek dama la fierté bu rëy laa ci am. xam nga juddoo ci fi dem ba sa place bopp di ko liggéey di ko jëriñ say parents lu neex moom dañ ni jeunesse Louga dañoo gëm bopp. ndax ku gis Louga tey lépp li fi nekk mën nañu wax jeunesse bee fi def man gëm naa fépp ku ma nekk rek mu ko amee sama place bopp mën naa demal sama bopp. bi nga nekkee xale di jàng Euh, da nga amoon beneen objectif professionnel wala xawoon nga ne que ci dem ba am sa dibiteri bopp ngay mujjee. waaw ba ma nekk xale amoon naa ko mais dama dem ba yàgg sama nijaay ma bàyyi jàng sama nijaay jël ma ci place bi dem ba yàgg commencé dama sama bopp. ba tey nga am sa liggéey bopp am sa lépp bopp. macha allah maa ngi lay féliciter bu baax jeunesse bi mën nañu roy ci yow. waaw maa lay moo courage di képp kuy ndaw ci région de Louga te bëgg tàggatu am na formation yu mun def te du la dikkee dara mbaamu mu dikkee la néew mën ngeen tàggatu ci transformation agroalimentaire comptabilité informatique menuiserie bois couture ak yeneen yu bëri yoo xam ne soo demee ci page yu mën na nekk yi nekk Instagram ak Facebook di ngeen fa am yi ngeen ciy soxla yépp biir Louga bëri na secteur yu ndaw yi toll ci liggéey mën a jublu mën ngeen liggéey ci artisana maraîchage culture céréalière élevage commerce ak yeneen domaines yu bëri yoo leen mën a gëstu boo leen demee pôle emploi pôle emploi wu Louga mi ngi nekk ci quartier Grand Louga ci ginnaaw agence Sonatel bi pôle emploi wu Kébémer mi ngi nekk ci préfecture u Kébémer pôle emploi wu Linguère tamit mi ngi nekk ci préfecture u jarul dafa pour fresh gaynde ñëwul bukki xaari ñumbal pour lekk ah vert jaune rouge team équipe bu champion lay play Sénégal yi bëri feeling fa ma fekk damay gëlën sama tàll yëpp wigin man du ma dox ci lu tilim dox ci lu ma yaa ngi gën samay clip xale yi xam nañ aw ma limite limite mineur bu dee sama musique dégg génnaat samay gisit àdduna nekk te jaar jaar mooy lépp jaar jaar àdduna mi ngi ni jaay taar du fay àdduna métti na waaye nag bàyyi faal bul welcome back ci seen podcast mën na nekk en direct de Louga comme ni ñu koy defee ci région bu ñu dem bu ñu waxtaanee ak benn entrepreneur ci liggéeyam ba pare dañuy daal di waxtaan ak ki nga xam ne mooy champion wala championne du réseau de champions pour réussiro au Sénégal ñu fàttali ne réseau boobu mi ngi doon benn kuréelu ay jeunes yu jóge ci région yépp ñu xamee leen gindi bépp ndaw ci wàllu samp sa këru liggéey wutum xëy ak sàkku xam-xam fépp ci biir Sénégal réseau bi nag mi ngi def vraiment liggéey bu am solo ci accompagnement jeunes yi balaa émission bi di jeex dinañ leen jox seen contact waaye balaa loolu dama fi dalal tey ki nga xam ne mooy champion RCRS de la région de Louga ñu koy woowee Mamadou Lamine Diagne Mamadou Lamine nan nga def ba ñu coopté la nga nekk champion régional de Louga. waaw man ni ma def tey ba ñu coopté pour ma nekk champion région bi man euh, damaa nekk jeune bi nga xamante ni. ma nekk Kër Momar Sarr di liggéey ci wàllum pisciculture bi ànd ak jeunes yi si leen ma jël na coopté ma def ma champion régional bu Louga. macha allah mais ndaw yi nekk région de Louga ban accompagnement lañ mën a jëlee ci réseau bi. képp ku ñu contacter tey si réseau bi dinañ la orienté bu baax a baax si pôle d'emploi parce que jeunes yi ñu mais amuñu information xamuñu fan war a dem dañuy am attestation des fois am ñu xam ne war a dem pour ñu mën leen financer wala ñu mën a am information yi ak ak si yenn ressources yi amuñu tamit euh, accès à la formation ñenn ñi mais nag ñun nag bu ñu contacter dinañ ñu dinañ leen teg si yoon bi nga xamante ni dinañ am si accès si yooyu yëpp. fan leen mën a contacter wee. tey ku ñu bëggoon contact tey sama numéro mi ngi nekk 77 963 13 81 77 963 13 81. képp ki nga xamante ne tey bëgg nga bëgg nga ñoo contacter aussi mën ngaa dugg suñu page. SRS réseau des champions pour réussir au Sénégal mi ngi Facebook boo demee fa ba ñu contacter dina mën a intégrer dugal ci biir réseau bi. merci beaucoup Mamadou Lamine maa ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal tamit auditeurs yi nekk di déglu suñu podcast mën na nekk nekk fii biir Louga ak fépp ci Sénégal di leen jox nag dox daje ci beneen numéro wu podcast mën na nekk ci beneen région ñu dalal fi yeneen entrepreneur ak yeneen champion nekk leen ci jaamu dong léegi léegi. koom-koom alal